dëgg la xëy na li muy wax lu neex bari na añi waaye ku nekk sa bos man li ma wax interprété naa ko xam naa signification li ma wax ko yëg la laa def ñun amul sañ-sañ bañ laa yëg loolu déedéet loolu dina leen waaye bu ko demee nag dafa koy tasaar dafa koy def ni ko ënd bu ko defee ko xamul ni kii daan xam fàgg boobu daan na semee li di tasaar waaye dama lay baal yow ni rek yow mi koy wax ma lay baal ba noppi di la ñaanal ndax sama dara ñu laa xelal sama yor dara bi ñu gaaw ngeen di déglu ba ci gërëm a nekk ci leneen Gracias. wàññi ko au contraire jabete no aggotango jamayte manam ndire ɓurɗe ɗi ko waxta no aggotango ñem koto faytani ma jaha minene leya tedd ki xajul ci kenn ñi ma ca xam dañoo ñu ma tuddee kenn ñu ñu ñett damay bañ kenn ñu ma bàyyi bàyyi